nak dañu and ak délégation bu reuy bu directrice générale bu CNO directeur yi nga xamantene ño nek ak mom ak équipe cadre bi yépp nga xamné ño and ak mom ñew pour barkelu ci bës bi nga xamantene amna, tambalé ko d'abord ci li nga xamantene moy comité d'organisation bi indil ko jumtukaay yo xamantene japp nañ né mën na ko accompagner ci organisation magal bi loolu nak dañ koy tambalé ci fièvre bi nga xamantene nek na ci réew ñu wut matériel boo xamante ne dina aar doomu aadama euh, euh euh ñi nga xamantene ñom ñoy magal ci muy lo bu am importance bo xamantene ay masque la ay produits hydroalcooliques ak ay satala yo xamantene tay dañ ko mettre à la disposition pour jàppale ñepp ñi nga xamantene ñom ñoom ñoo ngi ñëw ci magal gi

wàllum joxe ndox mi waaye dañoo ne bésum Serigne Touba bi duñu ko bàyyi kenn dañuy ñëw ca la nga xamante ne moom lañ ñu gën a xamee la nga xamante ne président de la république moom la bëggal nammal ko Sénégal yëpp mu nekkoon li taxoon mu dem wuti entreprise yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a xarañ ci àdduna bi mu indi leen ci biir réew mi pour ñu defaral Sénégal ndox mu sell te te te te te walangaan partout loolu it dinañ lëkkaloog. Euh, Euh, euh, société ba nga xamante ne moom moo yor ndoxum Touba indil ko xam-xam ba nga xamante ne seen o xamee nañ ko ko à travers Suez bi nga xamante ne moom mooy partenaire bi waaye it dinañ ko pour pour euh, ci xam-xam bi pour yokk li nga xamante ne mooy sellum ndox mi waaye it xam-xam ci nan la ñuy def pour li jëm ci ay fuite ñu mun koo teel a détecter defar ko ba fuite yooyu nga xamante ne mu ngi doon dem di doon perte ñu yaxanal ko ba dugal ko ci biir réseau bi ba ku ci nekk mën cee jot ca heure ba nga xamante ne war nga cee mën a jot jàpp naa ne loolu moom moo ëpp solo loolu nag ñoo ngi sant yàlla bu baax ba ñu rencontré porte parole di xalif général des Mourides sëñ Bass Abdou Khadre Mbacké sant nañu gërëm ñu ci loolu waaye it ba ñu dajee ki nga xamante ne mooy xalif général des Mourides

am ci it yu baree bare yoo xamante ne ñoo ngi ko ciy dox waaye mu bëggoon laa ñaan rek ci lii nga xamante ne moom moo ñu indi muy ñëw barkeelu ci bés bu toll nii ma ñaan la nga may ma bu ñu dajewaatee beneen yoon ñu yaatal ci lépp li nga xamante ne jël nañ ko ci ay jumtukaay pour régler définitivement li nga xamante ne jëm na ci ndoxum Mbàkke boobu ak li ko wundu yëpp ñu ànd ceeg autorités yi nga xamante ne ñoom lañ ci war a àndal yëpp. pour loolu ñu mun koo régler. kon nag bu nga jugee nga xam ne forage bi mu bëri bëri bu réseau bi baaxul tam du sotti kon léegi la ci seen taxawaay léegi ci seen jëf li nga xam ne barkeeloo ngeen ko ci marché yi nga xam ne sëriñ bi